Bienvenue sur Salam Vision. waa yéen a ko gis noonu affiche boobu ku ko gis xam ne kooku mooy Balla Gaye 2 ànd seen rakam boobu noonu du Sa Thiès waaye tey bu ngeen gisee ni tey public bi tey ji mel nii tey ji am na lu ko waral tey géejawaay tey yaatu na tey géejawaay tey ñëpp siggi nañ ku xool stade bi xam ne lii lépp dafa fees dell ba tribune bi gaa amatuñu fu ñu toog di waajal li nga xamante ni tey moo fi nekk tey ji mooy lan open press Balla Gaye 2 mais wax ji du fii de la la ba Balla Gaye dugg si allahu rabbi ma ñëw wan leen ni kan mooy Balla Gaye 2 ak lan Salam Vision ànd ci Kiki TV wa salaam. déggoo de xoolal mooy lamb Balla Gaye 2 mooy lamb déggoo de loolu ku ko sa da ko war a am ka sa la la ka ka ka ko assassinato, assassinato, assassinato, assassinato, assassinato, assassinato, assassinato, olha só, olha, olha só, assassinato, asalaamaaleykum Afrique Saoudienne centrale non violence lamb gese la dañuy bëre Balla Gaye doo suba rek mooy bëreeg Serigne Dia mbëru mbuur bi B52 boo bi am yar boo bi am teggin Balla Gaye 2 boo bi am bu yar bu am teggin dañ ko bëri ci jom ak ngor ak fit combat bi jeex non violence non violence non violence nag bi jeex ci jàmm ak salaam terminé ci jàmm ak salaam li leen promoteur bi yónni muy contrat bu ñu war a rempli nañ ñëw fii ñu dee ak promoteur bi dañ ak pref ñu rempli seen contrat ba mu mat ñu dem ñibbi fa yàlla amul xeex amul xuloo merci yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen turbine am lay wax nga wax leen man de li ma war waaw Balla Gaye wax de Balla Gaye kese amul sero amul yooyu noonu barki yenente bi Balla li tax ma bëgg ko man dama ko bëgg sama xol wallaay ansim di ko ñaanal nag yàlla may ko ndam comme ni mu ko bëggee rek ni mu ko bëggee rek yàlla na ko yàlla may ndam barki sin saaliwu waaw bala day am ndam ku gis presse bi rek nga xam ne bala day am ndam loolu kenn waxatu ko Bombardier na taxaw déggal boppam rek ñun loolu lañ koy sant ñu daan ko allah. waaw ndam rek ndam rek waaw Balla Gaye moo ñu fi indi ndam rek lañ soxla kom ni ko daan defee rek waaw jàpp Bombardier defaral ko bagage yaa ma gën a xam. ñu yàlla dañuy am ndam barki Serigne Touba te dama koy dóor mu daanu Balla ñu ragaluñ loolu géej waay lañ dëkk ay ndaw lañ ba ñu nekk tout tànk lañ. topp suñ mbër xam suñ mbër xa yàgg ñoo bégloo barke Serigne Bamba ñu ne Balla bu ñëwee nag ñu xam ne Balla ñëw na barke Serigne Touba xolal taalibe Bamba tarkindaa bi borom waaye mooy wax yow nag la naan Balla bu ñëwee rek ñu xam Balla ñëw na gaynde gu mag man <laughs> béy di balaa tudd béy ba waaw waaw non instant ni Balla dëggalum la mun nañu wax ni fii senegal ba mu daj Balla Gaye la bañ nangu Balla Gaye la bëgg bañ tam aussi Balla la parce que loolu ko yàlla may gis nga lu yàlla may euh, doomu bu ko nit euh, soxree quoi parce que soo xoolee boo xool mbër sénégalais yëpp lu Balla Gaye mën amul benn mbër bu ko mën suñ de wax dëgg am na wala amul. boo ñaa boo ñaa xoolal moom mu daan Sa moo tax mu naan Balla Gaye 2 mais xoolal ji Sa moo ñu yàqal. Sa Thiès moo ñu yàqal te billaay walaay Sa Thiès moo woon tey boo yaa dama ko bagage billaay walaay wala Balla dama jàpp Tapha Tine dama ko bagage moom bu gëmoon boppam boo ñaa mooy xale ah moom moo soxla moom moo soxla victoire moo war a ñëw jël victoire parce que moom mooy la moo tax deful loolu la moo tax deful loolu mais dafa ragal mais nag ku ragal bu ku ragal du bëri Balla Gaye ku ragal du bëri Balla Gaye ñun du ñaay ragal ñun waa ragal instant moo moo du combat ndax moom moo ko war a liggéey liggéeyu ko. boo ñaa boo ñaa surtout combat daa war a jox ba ci kanam Balla Gaye du moromam. boo ma xam loolu Balla Gaye du moromu boo ñaa déggool te déggool na nga nag na xam ne bu baax Balla Gaye du seen morom Balla Gaye du seen morom Balla Gaye du seen morom Balla Gaye seen baay la waa Pikine Balla Gaye seen baay la ñëpp yàlla ngeen xam loolu. combat bi nañ ci ñëw si discipline quoi ñu teey non violence parce que combat bi combat bu la c'est parce que Ama Baldé Modou Lô c'est le meilleur combat Balla Gaye Balla leen lan Balla loo foofu da folu man ah te la jëji waay jugu leen Balla da

normal xoolal door mu daan bu bëree xoolal ñu daan ko affaire bi xoolal King Balla affaire bi King Balla bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko bu xeexee ñu duma ko bu bëree ñu daan ko affaire bi King Balla la bu xeexee ñu duma ko bu bëree ñu daan ko yéen a gis noonu lool nag fii lay xewee fi nga xam ne mooy kër Balla Gaye yenn yéen ko gis noonu bis boobu la Balla Gaye jël indi ko fi pour waajalee ko li nga xamante ni moom mooy ci jour bi li nga xam ne mooy open press bi yéen koo gis noonu nag mu doon loo xamante ni lu ma jaaxal la tey te loolu tey moo fi nekk. tey bis bi kenn xamul fu mu jógee mais nag teewul tamit dinañ gën a xamaat lépp li ci nekk du mën ñàkk parce que fi mooy kër Balla Gaye 2 a ko gis noonu ñu di ko commentaire yéen a ko gis noonu gaa yaa ngi noonu di gën a bégee gaa yi bu baax a baax a baax lu mënta ñàkk parce que maa ngi ciy gis ay ñoom sama gaa a ah, du ñàkk nag mais yéen a ko gën a déggaat noonu du gën a joxaat gaa yi yi fi nekk baax a baax a baax a baax waaw Balla moom da yàgg naa wane boppam moom ku xam Balla moom xam ne Balla yàgg naa wane boppam moom si estat non combat bi du Thiès barki yàlla loolu Thiès billaahi jàpp ma amul sonal sa boobu sax mooy loolu. tasambaare tey la mu naan tës tasambaare mu naan tës. baa ngi noonu gaa yaa ngi ci kaw ko ko xool xam ne fees na dell. tey ku waral li tey Balla Gaye 2 rek moo ko waral tey ku xool public bi xam ne lii ku dëkk géejawaay doon ndaanaan muy kan muy Balla Gaye 2 la lieu de géejawaay tey ku xool tey stade bi tey xam ne lii fees na dell tey jii tey gaa yaa ngi nii tey jii ñëpp teew fi tey jii ngir waajal open press su Balla Gaye 2 tey nag Balla Gaye 2 nag riir la fu ne waaye xëy na tey nag gaa dinañ ko gis Balla Gaye 2 ngi tëral mu ngi def loolu Diop ñu ngi lay siyaar. waaw delloo naa la. maa ngi am jàmm baax. maa ngi am jàmm bu baax. noo gisee open press Balla Gaye 2. Balla Gaye estar la ndaanaan la. incha allah dañu am ndam bi. Balla Gaye 2. ah bu dee bëri revanche. kan lay bëri revanche ñu ne Bombardier. Bombardier gars yi nañ gis nañ gars yi nañ gis nañ. dañ koy gis ne Balla Gaye 2 bu jour waa Badia. boo bu bëree lii moo koy may ndax wala bu bëri lii lii moo koy may ndax. Balla Gaye incha allahu rabi dañu am ndam bi day dóor day daan. Eh, Balla Gaye moo mun ki moo ko mun kii te kooku ah, loolu moom eh, vraiment bala moo juum rek mais kii moom bala moo ko mun. yàlla waaw waaw ah. Balla moo ko mun xanaa giso na bala tey am ndam bi bala moom boo tey day am ndam te am nga bala bala daa gaaw bëre incha allah loolu day am bëggee naa la. noo gisee préparation combat Balla Gaye te Balla a def open press tey fii ci. xanaa xanaa kontaan rek. incha allah dañuy am ndam incha allah oh. waaw. mu tey rek. waaw dañoo am ndam de bañ am comme daal combat bu passé bi te boobu dañoo amoon jafe-jafe rek loolu daal mu dañ bi yoon incha ah, loolu loolu est-ce que nekkul waxu supporter. jafe-jafe la woon. Ah, wala daa liggéey de. mais am am victoire ah, waaw waaw bëggee naa la. seen Balla Gaye 2 moo koy waaj mooy waaj a wàcc noonu ci bis bi yéen a ko gis noonu yéen a ko gis noonu Balla Gaye 2 mu ci biir bis bi yéen a ko dégg dugg ci biir bis bi ndaa naa ne mag yaa ngi noonu lii la gënoo ci biir waaw lii doon boog waaw waaw yéen a ko dégg noonu dégg noonu ambiance baa ndox ambiance yaa ndox lii doon boog lii doon boog yéen a koy dégg waaw waaw dégg loolu dégg ngeen ambiance boobu noonu lii mooy indi yëngal loolu waaw waaw waaw ñoo ngi ko déglu ren bëte bëte yi ñoo waa pare nañ te waa Guèye waaye tey pare nañ dafa mel ni tey te ma fi gis tey gisuma ko fenn te li ma gis fii gisuma ko fenn tey gaa yëpp a ngi ci biir la da ngeen te champion yi mag yi ñëpp a ngi ci biir tey ku xool lii te xam ne fi tey ay champion rek fi tey tey Balla Gaye dee ngi ci biir wàcce ku naa mais mooy waaye Balla Gaye dee génn na biis bi Balla Gaye dee génn na biis bi ñëpp a ngi yoxo ci kaw Balla Gaye dee génn na Balla Gaye dee ngi ci biir Balla Gaye dee ngi génn Balla Gaye dee génn na ci biis bi yéen a ko dégg noonu Balla Gaye yéen a ko gis noonu mu ngi def ay débat dem mu ngi doon di def ay débat dem di waajal li nga xamante ni moom mooy liggéey bi Tyson lay doublé ci public bi ko wuy si Balla Gaye doo gàtt Balla Gaye doo gàtt oh la leer a géewaay la leer a géewaay na ko ziar yàlla na ko waaj fis taw. waaye a baax. a doon waaj bu a baax a baax. waajal ñu koy waajal. mais eh, gis nañ Balla Gaye na ñu ngi lay jaajëfal. nga xamante ne ko gis noonu kii ku ko xool kii kii ko ko xam ne mooy saf yoon le grand Balla Gaye dégg nga te léegi nag géej waaye ñu nii Balla Gaye dégg nii ma dëggee rek itam noonu yéen a ngi koy gis noonu yéen a ngi gis ma dëggee tey ñu gis Balla Gaye dégg ku mën gis dëgg nii ci làmb ku mën ku mën gis ci làmb gi nii dafa dooleem ko yéen a koy gis noonu yéen a koy gis noonu Balla Gaye dégg noonu ak ñoom ma dëggee tey ñoom ñëpp ñu doon ci biir yéen a ko gis noonu sax ñoom ma gars yi doon ci biir. Sabaye mag yaa ngi noonu Sabaye mag yaa ngi nii yéen a koy gis noonu yéen a koy gis noonu de yéen a koy gis noonu Sabaye mag yaa ngi noonu Balla Gaye doo ngi noonu la léegi waaye nga Balla Gaye doo dugg la ci biir Balla Gaye doon na dugg na ci biir Balla Gaye doon na dugg na ci biir Balla Gaye doon na dugg na ci biir bu ma dem li nga xam ne dafa doon liggéey bi ah waaw waaw mais li jaay dafa leer de maa ngi dem jàmm waaw Balla Gaye doon nañu ñaanal ndam bu sedd buy nag boo ko jëlee bu ko waxee ñu bu ma woo bu bëree ñu daan ko Balla Gaye doon dafa ñëw na public bi jug mais ban secrétaire moo nekk tey ci biir instant non waa Guédiawaye ci boobu ñoo bëgg Balla Gaye numéro 2 parce que champion boo xam ne mooy le meilleur de Guédiawaye dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam nag mu yàgg di ñu bëggal gis naa fi tey champion yu bari la nekk kër ñoom Aliou Seye gars yëpp ñoo fi tey saa kese moom gis ko tey mu nekk ci affaire mel ni tey jii moom moom moom non moom fi mu toll nii kay grand yàlla na yàlla defal cat te mosul ñu seytaane ndam kese incha allah lépp Boucher yéen a ko gisee lu baax a baax Boucher ngi noonu yéen a ko gis noonu Boucher ngi noonu waaw ah, kon xajal la ñu da leen ñu liggéey da leen ñu liggéey da leen ñu liggéey seen dara bu noonu Boucher ngi noonu ah Baboy yéen a Baboy Baboy da nga ko la gis tey da nga gis noonu da nga gis noonu da nga gis noonu waa Guèye waa Guèye kay di fëtti ki njëy Dada Ndiaye noonu di fëtti ki njëy jël Sa Thiès gi noonu a ko gis noonu yaa noonu gisale ñu ngi noonu champion yaa ngi noonu da nga noonu lii lii ngi noonu gaañaa ngi doon di feeti ku xool ñi xam ne ñii ay ndaanaan lañ gis nañ dafa doole gi noonu yéen moo ngi leen gisoo ci wet gi waa Guèye waa ngi doon di bàkku di feet di ñëw waa Guèye waa ngi doon di feet di ngeen di ñëw waa Guèye waa ngi doon di feet di ñëw kon ku dégg xam ne Balla Gaye doy la Balla Gaye doy gi noonu gis noonu moo ngi doon di feet jërëm ci dugub bi jërëm jërëm ci ndënd yi Balla Gaye dégg na def équipe da nga gis Balla Gaye dégg na yónni kii waaw ngoog Balla Gaye dégg na def ci yëngal Balla Gaye dégg noonu Balla Gaye ñoom ñaari gi noonu xaaral na gën a mbarke doonu noonu ñu ngi def seen commencé ñu bu baax a noonu benn mbarke doon gi xeex noonu Géejawaay jëm ma bëgg na kenn ku ne bala ñoo commencé fii ci Géejawaay nga wax sa làmmañ ni Balla Gaye 2 yàlla na ko yàlla may ndam di ñaanal sunu ba tuubal lees yàlla yàlla yokki leeram di ñaanal sunu ba Balla Gaye duur yàlla yàlla yokki leeram ndax ab tegale bu guddee te daanuwul ba juusoo jub kon Balla Gaye def li nga war a def gis naa la ci vidéo bi bindu nan sa baay sa xol tooy na def oh. nga ca la nga ca war a def ñaanal nga ko yàlla yàlla xare ko ajal kon nag léegi mbar maa ngi nii jërëjëf jërëjëf bismillah ayo taal ko micro bi joxul ma mbal mbaw alma micro jaar ko micro taal ko mbal mbaw micro bi day wax rek sama xam naa jërëjëf kaay waa léegi gars yi presse bi. baax na c'est bon baax na ah, c'est bon su ngeen paree su baaxee rek ñu dem. teel ko bi teel ko bi. yéen rek la ñuy déglu fi mu nekk nii. waa jërëjëf. waa Guédiawaye ñu ngi leen di nuyu. di nuyu champion bi ñu fi fekk. Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye ñu di nuyu presse bi yëpp. tey di am mbégte ak contentement bu mag teew fii si Guédiawaye li ko waral mooy bésub Gaston xaalim nañ Gaston production le premier janvier fële ca arène nationale diggante kan Balla Gaye numéro ak nga xamante ni moom mooy Bombardier tey ñoo ngi fii si Guédiawaye fekk si un très grand champion Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye réew mi ngi lay ngay bitim réew ñu ngi lay déglu ñu bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan ba nuyu réew mi. jërëjëf bisimilah bi la seetaan rajim bisimilah rahmaan rahim ginnaaw ba ma sant yàlla bi Cheikh bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suma sëriñ sëriñ Bassirou Bara di ñaan yàlla yàlla yokk leeram amiin amiin ñaan sëriñ Moustapha Mbacke mu yàgg fi loolu dëgër dafa toog ak sëriñ Babacar Sow ak Alaaji Malick bu Kumpe Njaasaan njabootu soxna sax Sadio Laayeen Xaadir Ñaseen ñëpp bàyyiwuma kenn mu ne naa jur di ñaan sama papa yàlla ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana moom ñu fa ak suma turandoo suma papa Mbay Géew ak Birahim ak wasafal euh, Boy ci barke bi sallallahu alayhi wa di nuyu supporteru Balla Gaye yi nga xamante ne suma ba léegi ñu ngi fii toog di xaar seen mbër di leen nuyu di leen masawu coono di leen baal àq te xam ne seen mbër moo waral tey ngeen def dérangement suba ba léegi ngeen toog fii et leen ne nag lépp li nga xamante ne dañ nga seen mbër bu soobee yàlla le premier janvier incha allahu bu neexee yàlla ma fay leen te am nañ ci xel mu dal mu baax a baax di nuyu Adama Ngom di suma mag di suma xarit yàlla boole ma ak yow ma sopp la lool te respecté la yàgg ñi nga àndal ñu yàgg lool nag maa lay sant maa ngi lay gërëm mbaw maa ngi lay bëgg bu bu loolu weesoo ma sant suma kilifa Abdoul Aziz Ala Ndiaye ginnaaw yàlla ak yonent bi yéen fans yi lépp Aziz da ciy ngir géejawaay ngir Balla Gaye numéro 2 pour mu am ndam kon kooku dama bëgg ngeen ko bu baax a baax baax a baax yàlla na am fay yàlla ko yàlla fay day daj ay coono di daj lu ne ngir Balla Gaye 2 kon maa ngi nuyu Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall Simon di nuyu Baye Ale bàyyi ma jigéen du suma xarit du suma lépp du suma doomu nday muy daj lu ne wóorut ndeysaan ah di nuyu aussi tamit ma sata bu baax nekk suñu mag nekk suñu kilifa di nuyu aussi tamit Ndiogu Mbaye sama fils di nuyu cek cek i pongaari <laughs> di nuyu ñëpp di nuyu Kor Ndiak di nuyu Pape Mama di nuyu Andaw Ndiaye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di nuyu waa Géejawaay yëpp ak képp kuy supporter Balla Gaye di nuyu Baara Gaye Cheikh Mbacke maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu aussi Lac de numéro 2 mi nga xamante ne dafa bàyyi ay yitteem ñëw fii ak Alioune Seye numéro 2 ak euh, Eumeu Sène junior bu ma limee dinaa juum mais dama koy tënk di nuyu Marley di nuyu suñu mag Lirou Diane monument Géejawaay ak mbër yi nga xamante ne bëggoon nañ fi teew ñu am ay maa ngi sant di leen gërëm di nuyu ak Ousmane Diop di suma rak suma frère Sakès di nuyu école de lutte Balla Gaye numéro 2 di nuyu suma mag Malal Sakho di famille Sakho ak famille Ndiaye bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf waaye Balla Gaye nga ñu jëm ci bis bu mag sa diggante bombardier di combat boo xamante ni combat revanche la Balla Gaye jàpp nañ ne mbër la moo xamante ni. yaakaar na ni ku taxaw ci kanamam rek moo la mën ku taxaw ci kanamam bu la jàppee da lay dóor da lay daan nga war a bëri combat revanche est-ce que Balla Gaye numéro warul changer stratégie ci combat bi ci digganteem mag ki nga xamante ni moom mooy Bombardier. jërëjëf maa ngi nuyu Lamine Golo mi nga xamante ne moo nekk école de lutte Balla Gaye di daan doole. vraiment muy taxaw booy yi di leen wax macha allah liggéey bi rafet na ñoo koy ñaana yàlla. ah ma laaj nag sama revanche sama revanche supporters yi toog la mu jaral ma ma dem bitim réew ngir ñëw bu bés ba daal allah ba ma jël leen nag laa lay wax waxuma waxu mi ko de bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko incha allah. xaaral xaaral xaaral xaaral Omar balaa ñuy balaa ñuy ñëw ci question yi balaa ñuy ñëw ci question yi dafa violence bu bari ci lamb mënatuñoo am combat bu mag bu jaar bu jàll ci jàmm bu jeexee gis nañ ni ñu toj oto jàmbur yi ñu ngi sàcc moto jàmbur yi signature bu baax gën nañ ko am say supporters ñoo nii. soo leen waxee ñu déggal la message nga leen di lancé le premier incha allahu rabi waa Mbour bu ñëwee ñu dalal leen ci jàmm ba pare Bombardier ci jàmm këlal leen kay message boobu bëgg nañ nga lancé ko say supporters ñu dégg waaw Lamine xam nga ne supporter Balla Gaye gis nga ni mu mel dañoo ànd ak dal ànd ak yar ànd ak respect ma sopp leen loolu nag ñu xam ne seen bëre daan moo ko taxal tuuti non violence moo ngi nii non violence moo ngi nii ku ñëw na nga ànd ak yar ànd ak discipline ànd ak respect supporter sa mbër ci kaw sa mbër bëri ci suuf yàlla may ko ndam ñu ñibbi loolu rek laay wax balla mu mel ni que barki démb démb ci guddi Bombardier yi ñaar déggante ngeen téléphone fi nga xam ni mooy plateau Walfadjri ci Pape Aline bi ñu ko laajee ni ko combat bi ñaata minutes lay duré mu ni bële da nga koo joxoon ni ko deux minutes laa la may soo ñëwul moom dina ñëw nee na combat bii mu ngi leen laaj ñaata minutes nga ko may moom Bombardier. le temps passe loolu passé na mu ngi suñu kanam. Mhm. mu ngi suñu ginnaaw bopp li nekk suñu kanam moo importance. Mhm. lenn rek laa lay dégg. Balla Gaye bu ñu bëreeloon bii du benn mhm. loolu rek laa tontu bi démb loolu laa ko wax Balla Gaye bu ak bii du benn incha allah war bi sufle naa ko woon na Balla bii mu bëre woon ak bii du benn mu ñaan mu ni dafa bëgg bul jóge mbuur ñu accompagner ko te ku ne xam na ni yow da ngay yëngu ci non violence parce que Balla gay doy ku ko xam xam ni dafa mës a làmb lamb ñu dégg suñu bàyyi Xaadim Samb mu ni Bombardier Balla Gaye combat yi mu bëri yëpp war naa mat 30 combat waaye boo ko dajalee lépp lépp matul 30 minutes Balla lan mooy sa secret sant yàlla rek ànd ak sumay staff am encadrement bu baax ñu may jàppale rawatina waa Guédiawaye aussi tamit ak supporteru Balla Gaye yooyu yëpp di ma poussé ma ni ma entraînement ñeme coono moo tax bu ma ñëwee damay def li ma war yàlla may ma ci parce que loolu la am importance di nuyu Omar Mouma di suma lépp di suma xarit nga xam ne dafa bëgg Balla Gaye numéro deux ba mu jeex tàkk maa ngi jéggalu wax ko ba te a ma nuyu Omar maa ngi lay nuyu bu baax a baax mais Balla combat bi dañ seet ni dañ deux fois dafa mel ni combat moo am dayo boobu wala da nga xam ki ngay dajeel kan la wala revanche bi moo ko laaj. Bombardier ku ko xam ne champion la. Mhm. ku ma respecté la. ku lay jiitu ci làmb presque ay six ans wala sept lu ko ba nga nekk tout tànk kon kooku nekk na mbër ne ko war a respecté ci lépp lu mu war a moo tax mu ànd ak sumay sama ñu waxtaan ci ma voyage deux fois ngir war a jël suma mu jaral ma loolu nag donc loolu moo tax man ma fan nga teg ni bombardier bu xeexee nga duma ko bu bëree nga daan ci micro ngay waxee te bombardier ni muy dégg. micro pour wax rek la waaye jëf moom solo man mosuma waxatuuma lépp lu mooy wax ndëgëm neex na yàlla laa ci jiital donc àggale mi nga xamante ne war naa ko def mooy ci suma liggéey mooy ci suma entraînement mooy ci suma ñëwee coono moo tax ma te incha allah bu neexee yàlla ma lay combat bi dina yàgg yàlla moo xam yàlla mooy may ndam waaye li ma liggéey daal bu soobee yàlla bés bu baax ndax lu ma am lépp. yàlla ban mooy diriger combat bi. non moom mënut a diriger maay diriger. combat bi ci xëy si ne yaay diriger yaay dox ci kaw. maay diriger incha allah maay duma incha allah maay daal incha allah. ci lay jeexee wala ci lay jeexee. lu ñu yàlla may ndam ñu doon. ñu luy taw suba. xeex baax na bëri baax na. benn bëri. kontaan nañ ci yow. jërëjëf maa ngi nag bëggee ñëpp géejewaay di nuyu Alioune Sall bu baax di suñu mag di suñu lépp di nuyu Lat Diop di nuyu Nenna di nuyu Ahmed Aïdara di nuyu suma mag suma lépp alaaji Malick Gakou parce que tey suñu mag la suñu kilifa la suñu lépp tey day taxaw toujours pour géejewaay jëm sa kanam kon donc nag vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm Abdou Aziz nag encore une fois chaque jour ma koy wax di gërëm Juba Ndiaye sama xarit di nuyu tey suma famille famille Sakho maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu suma ma Ibrahima di nuyu buuse bu baax dafa buuju maa ngi lay jóge gis naa coono yi xam naa lépp ba dara noonu maa ngi leen di balu ak Baye Mandiaye ma ngay ak commissaire ak Thierno Gueye maa ngi nuyu bu baax a baax ak Fallou Mbengel mi nga dafa déplacé dugub bi ñu naan ñoom ñu ngi Amadou Sarr sama mag. Balla drapeau Alaaji Mansour. waaw di nuyu nag. ak di ñaanal suñu maam Alaaji Mansour Mbaye di ñaanal yàlla yàlla guddal fanam di nuyu Cheikh Mbaye di doomam nekk suma xarit di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér gi yaram. Mm-hmm. mu ñëw fekkee bis incha allahu ñu bëre daal dem ñu looy wax ci sa papa Gaston Mbengue waaw bu xam suñu papa Gaston Mbengue mhm. dafa indi làmb fii mhm. fi mu ko jëlee ak fi mu ko indi ñëpp xam nañ muy feetee nag trente ans di wax nag Sénégalais yëpp ñu ñaanal ko mhm. ndax suñu papa ju baax la suñu papa ju respecté doomu aadama la suñu papa joo xam ne ko am kóllëre la père Gaston lay ñaanal yàlla lépp li nga sumb yàlla may na ci dara. jërëjëf jërëjëf. waaw man man bu baax maa ngi lay Lampor dégg ngeen. di ñaanal nag euh, suma papa famille Ndour di Baye Balla. famille bi yëpp maa ngi leen di ñaanal di nuyu waa Waalo waa Seedo waa Casamance waa Guinée Bissau maa ngi leen di nuyu baax di wax mani mbandikoy koy mbaal tentu leen mbaal jay le Casamance bee maa koy naa buutee Bombardier naa booy. gis naa fi waa naa buute naa booy incha allah gis naa fi waa Gambie de. xam nga ni ñoom ñooy Balla Gaye waa Mourtani ñu ngi ñëw di nuyu fan si club Balla Gaye de numéro ah di ko nuyu nag di ko teg ci loxo Assane bu ma ko waxee nag Cheikh Ibrahima xam na Salki xam na Jabaay xam na maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu nag waa Dufosé waa Sandaga waa Medina bay ma dem rawatina nag waa Farba maa ngi nuyu waa Farba baax di nuyu waa notaire xale yi cité jàppoo saam man koo jigoo boobu jël jaxaay bàyyi ma dem moo li may naaj maa ngi nuyu sama supporter yi nekk ñu yëpp Adama Ngom jërëjëf yal na la yàlla fay yàgg ñu nga àndal ci barke